أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأراضي رب المشارق ورب المغارب الحي القيوم ذي المجد والكرم ذي العظمة والكبرياء ذي العرش العظيم الحي القيوم wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran wa kafa billahi wakilan wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi sayidina muhammadin shafiina wa qudwatina mawlana muhammad alayhi salatu wasalaam wa ala alihi wa sahbi sallim asalaamualeykum mbokk yi seen mbokk Momar Seck moo del waxtaan yéen ci lislaam euh, nu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di balu di balu àq di ñaan yàlla subhanahu mbooleem koo xam ni ki ak foo mën ne soxla si nga am yitte yi nga am tawat yi nga am jaaxle bi nga am ak anamu jaaxle bu moo doon yàlla na yàlla indi xéewal wér ak wérle aajo yu faju njaboot gu déggoo liggéey bu jàppandi ànd ak barke nu ngi seer kilifa réew mi kilifay diina te mu ne diina diina lislaam ndax diina ji officiel mooy lislaam yàlla kat moo ko yàlla moon inna diina inda al islaam ñu fi jaar yëpp seen seen diina officiel officiel dafa nekkoon officiel mais bi lislaam ñëwee nag dafa rassembler toutes les religions tous les livres révélés tous les prophètes sont reconnus au niveau de l'islam kon la seule religion officielle auprès de Dieu c'est l'islam yàlla moo ko wax subhanahu kon nu ngi ndokkeen ñëpp di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm ci kilifa yi dolli jàmm ci ñu dëkk réew mi ku nekk baar ba nga yar nga am fa cër di wax ñuy ñuy dégg di def yàlla na baar ba déggoo li yàlla bëgg tàgg yàlla tàggatal la ñu ngay ñu ngay commande ñu ànd ak yow ci la neex yàlla euh, kilifay réew mi itam yàlla na yàlla gën ko jàppale ci li nga xam ne moo gën ci nun gën ci moom te yàlla bëgg ko te yàlla gërëm ko waaye lépp lu am day dee delloo réew gannaaw ko ak lu mu neex neex lu mu baax baax te yàlla bëgg ko yàlla na yàlla dimbali ko si ba du du ko sax xelaat waaye lépp lu baax réew mi ci wàllu xam-xam wàllu am-am wàllu mën wàllu déggoo wàllu juboo te ngërëm ngërëmu yàlla nekk ca yàlla ko jàppandi lépp lu safaanul yàlla bëggul nag yàlla na yàlla naaxal saay xel yi ñu koy xelaat te tàggal leen ci xel muy defar réew te xel muy tax yàlla gërëm xel muy tax jàmm am mucc am déggoo am xel mu tax sayyidina salaam bég xel mu tax lislaam di bég alxuraan di bég ajuma di bég julli di bég ñëpp di bég te yàlla ci yàlla gërëm mbégte ti nag nekk si biir mbégte mi yàlla kon lépp loo xam ni kilifa képp kilifa fa nga ne la ngay jëfe la ngay wax la ngay xalaat yàlla na dëppoo ak li neex yàlla subhanahu wa taala tey baaxal réew tey baaxal njaboot tey baaxal askan tey baaxal diggante réew ak réew nu ngi nuyu ñëpp di nuyu nag waa bu baax a l'équipe eh, di nuyu nag le directeur général di ko ñaanal jàmm ak tawfiix ak déggoo mu am ak déggoo ak son équipe di ndokkee nag bu baax Imam Ali Imam Ali Mbaye ak discrétion bu baax a baax ki nga xam ne nekkoon nag ci ci scène bi ci machine bi moo di Pape Lay le grand technicien kon mbokk Euh, li nga xam ne mooy tamu tey bi te muy loo xam ni ñëpp a ngi koy waajal muy lu rëy muy udhiya ñu ñu tuddee le sacrifice maanaam tabaski te nag bu ñu tabaski rek xel yu ñaw yi xel yu ñaw yi tey xalaat xel yi méditer tey réfléchir dafay dem ci Ibrahim alayhi salaam ibrahim mi nga xam ni yàlla moo ko ne ibrahima alladi waffa ibrahima mi nga xam ni il a rempli tous ses engagements comme moom mi nga xam ni matal na kóllëre ibrahima alladi waffa mbokk yi nañu bàyyi xel si ibrahima alladi waffa ibrahima nga xam ni matal na kóllëre kon bind la boo xam ni nit ku ne am na pacte bu yes diggante ak sa moroom sa diggante ak sa dëkk sa diggante ak sa réew waaye sa diggante ak sa borom waaye sa diggante ak sa bopp kon Ibrahima mii day yàllaa ko tagg mondialement universellement Ibrahima alladi wafa xool Ibrahima mi nga xam ni matal na kolere yàlla teg si salaamun ala Ibrahim inna kadalika najri muhsinin jàmm kañ ci Ibrahima rek Ibrahima du dañ di am jàmm ndax it noonu lay récompenser noonu lay joxe salaire yu dul rafet ñi nga xamee ni œuvre bi mooy seen bëgg-bëgg fu ñu toll lu baax lañu la ñuy xalaat lu baax la ñuy def mu ne ci Ibrahima nga xam ni nation la ma Ibrahima nga xam ni loo xam ni une nation entière moo ko liggéey pendant di siècles Ibrahima def ko en en en clin kon yàllaa ko tàggat. yàlla ko formé façon boo xam ni lu ñu naan formation accélérée formation ramassée mais positif rationnel potentiel toute sa formation mu Ibrahima ko Ibrahima moom nga xam ni bu ñu nee tabaski rek xel yëpp dem ci Ibrahima tudde ko nag Ibrahima nattuka nattu bi nattu bi Ibrahima albalowa Ibrahima nga xam ne albalowa boo dee nattu rek ci moom la fekk baax koo xam ni kii da nga judd si ay jaamukati xërëm di xale bëgg leen soppi natt paasewul loolu juddu ñoo xam ni xërëm lañu xam ñoo la jur nekk say baay nekk say maam nekk say xarit say dëkkandoo yëpp nga bëgg leen soppi xamal wala dëgg te seen seen kanam gi juddoo natt pa nattongoo waaye natt paasewul jóge seen réew dem beneen réew moo dëkkul cosaan woo fa bëgg fa saxal diine natt ngoog waaye nattu paasewul di woote di woote sa boroom ña wër ña wër bañ la ngay woote yéen bokk deret bokk lépp ngir rek sag tuute la ak nga juddu seen kanam ñu xalaat ne boo màggee da nga leen di yiir ñu wut ay pexe takk la pour san la si sa sawara wi pour nga sawara wi lakk la ah loolu mbokk yi natt la de waaye natt paasewul dem bi am at yu bari ñu la néegu góor loolu natt la de mbokk yi de kon mbokk yi nattu paasul nga tabaxal kaaba gi yàgg sa doom ak tabax ni mu mettee ak kaaba gi ni mu réyee borom bi jox ko boobu boobu engagement kon ñoo yëpp ay natt yoo xamee ni dañu ko résumé rek waaye natt paasul rek am doom masuloo am doom sa doom dem fa ngeen fa mooy neex a gise sa borom na la rendi ko ah mbokk yi ay nattu la de ay nattu la marchandise yàlla dafa cher de marchandise yàlla lu cher la mbokk yi kon nag nattu boobu nag ba ñu sa jël tudde nga nag tabaski waxuñu gàddaay gi waxuñu sànni ak samara bi waxuñu dugg néegu góor bi waaye waxuñu jaamu xarit bi waaye dañu jël simple otoxiya tabaski kon li war a tabaski moo di Ibrahim mi nga xam ni yàlla kon ko nattu di ko éprouver pour xamal ko boppam ndax yàlla xam na laa fi nag des choses yàlla xam na fi mbir yi ni muy ni teere waaye pour xamal Ibrahima ak dëggoom ak kañ kañam ak nangoom ba mu gën a am résolution ci waxin kon te mu tey bi mbokk yi moo di al udhiya le sacrifice ay nu ñu tëralee programme bi nag mbokk yi moo di définition tabaski taariful udhiya bu ñu fa jigéen def le mérite fadluha jóge fa def xikmatul udhiya la philosophie du sacrifice bu ñu fa jigéen def afdalu udhiya la meilleure offrande maanaam di gën ci tabaski teg ci nag waxtu zabiha ci waxtu rendi bi ak yéen ak yéen incha allah jeexale ko ay hadith nabawi sallallahu kon mbokk yi lii moo di sunu plan liggéey xam naa daañu si def ñaari séance incha allah ndax lu rëy su lu am solo lu rëy la tabaski tabaski képp koo xam ni kii yëg nga ne Ibrahima mii fi mu jaar ba yàlla defar ke lii da koy xemam dañu naan da nga koy fan fi mu jaar ba réussir ci ndimbal borom bi ak dëggoom ak pas-pasam ah loolu leson la pour képp kuy jeune leson la képp kuy bàyyi dafa nekk képp képp kuy góor Ibrahima fi mu jaar waaye mu muñ supporter ba am bi bi ndam ba le monde entier du célèbre di célébrer tabaski mu nekkoon mennam xar léegi milliards de moutons wala wala chameaux leneen lu mel par an kon ñaan ku yàlla nangu ànd ak barke gii de moom kenn du ko wax kon yal yàlla barkeel lépp képp ku tabaski yal na yàlla barkeel la ku amul it yàlla jox la yoolu ku am ndax am nga yéene waaye yal na yàlla jàppandil bekk ñëpp tabaski ñu war tabaski tabaski li ko dekk xale beek mag meeg jigéen yéeg góor ñeeg mag bi yëpp tabaski moom ku ku majeur wàccul kenn même boo majeur boo majeur boo majeur sax boo ma nanga tabaski bokk noonu ak Sénégal dañu naan amaguma jabar du ma tabaski déedéet loolu daal gisaguma ko fenn amuma jabar moo tax du ma tabaski wala ama yëkkër xam du ma tabaski gisaguma ko fenn boo ma boo ma ne tabaski tabaski Ibrahima mii kat wafa kon loolu mooy sunu plan liggéey kon nu si définition tabaski taarif al udxiya mu ne al udxiya hiya shaatu tusbax duha yowm al iid taqarruban ila allah taala bu ñu bëggee définir suñu bëggee yaxal euh, baat tabaski nana ab gàtt la bu ñuy rendi ci yoor yooru feet ci yoor yooru iid ngir jige sàkko jige borom bi taqarruban ilallah mbokk yi bon li noble la oh macha allah ren bi ngay ren di du aw tur du pour mbooloo du pour lekk aw yàpp du pour feete ngir jige sa borom bi mbokk lu rëy de ngir jige sa borom bi kon dafa jar soo ko mënul sax at bu jot wala weer wu ne ngay denc tabaski denc nat mbaa ngay yar mbaa ngay denc xaalis pour rek fas yéene tabaski ngir jege borom bi mooy sa intention ah da ngay seet ndegam at bi yëpp weer wu de am na ñuy cotiser ngir ngir tooñ yàlla yàlla ci man da day bayar ndax 24 premier janvier ngay di ko nat fas yéene seen mooy yàlla ba at ba at mi jeex nga nat fanaanee bal fanaanee fecc fanaanee tàccu fanaan sol yëre yoo xam ne lislam bugg waaw waaw ndegam nit mooy def loolu kii nag ne day waajal am tabaski fas yéene see jige borom bi mooy intention aka ñoo sore ces deux intentions doon taqarruban ilallah kon mbokk yi tabaski définition bi taqarrub la gàtt la bu ñuy rey bu ñuy rendi ci yoor yooru tabaski yoor yooru iid taqarruba ila allah le pourquoi nga nag ngir jige borom bi subhanahu wa taala ngir jige borom bi subhanahu wa taala kon du ñëw si xukmu xa ndax xukmu mooy fu ñu ko légiféré ndax boo demee tribunal dañu naan article bi lan la wax wala acte bi nga acte jugement bi nga jugé foo ko teg wala foo ko yëg provisoirement non yëpp en instance renvoyé yëpp toute appellation am na article boo xam ne moo stipulé loolu nit nag moo créé loolu ndegam nit mu mën a créé loolu yàlla mbi ko jox xel jox ko xelaat jox ko ay moyens ba mu mën loolu yàlla defe naa ni war naa loolu kon yàlla moo nu andil lay woo xam ni ñi naan tabaski noos ce n'est qu'une noce déedéet de du noce de c'est adoration jaamu yàlla moo tax ñu ne al udhiyatu sunnatun waajibatun ala ahli kulli beytin muslimin qadara ahluha aleyha kon mu ne li nga xam ni moo nekk àtteb tabaski mu ne ab ab gàtt la sunna la boo xam ni bu war sunnatun waajibatun mbokk yi na nga répété ak man sunnatun waajibatun waxat leen sunnatun waajibatun bon al udhiyatu sunnatun waajibatun ala ahli kulli beytin muslimin qadara ahluha alayha loolu mooy att bi euh, tabaski sunna bu war la ci bépp njaboot jullit boo xam ne mun nag attan nag wa dalika li qawlihi taala fa salli li rabbika wanhar définition bi ñëw bi yaxal euh, définition bi atte bi borom bi ne fa salli jullil muy impératif li rabbika wanhar jullil ngir sa borom te loj loj nag mooy luy gëléem ak lu nu mel waaye gëléem lañ ci gën a gën a gën a xam fa salli li rabbi ko war a xam jullil te booy julli sa borom rekk tax booy julli ne sa borom rekk tax ngay julli te booy loj na borom rekk tax bu loj ngir leneen nag lojal ngir sa boroom julli ngir sa borom man ngaa nag reen teral nit waaye teral bi naka yaa naka yàlla jiitu ndax yàlla bëgg ko teral gan nga am sa gan ren di ko xar teral loo ko mel ne jaamoo ko yàlla di moo ne ku ku gëm yàlla gëm war na nga teral sa gan kon teral bi nga koy teral moom bu mu tax mais na ko honoré mais yàlla bu kutal gan nga am si nag tuyaaba beneen bi mu ne man kaane zabaha xab salaat fal yuid day wan ne yonent bi ne nag képp koo xam ne kii da nga rendi te julli gi amagul na nga baamtuwaat sag rendi kon yonent bi sallam daf ñu woon yoonu ne tabaski lu war la bu ñu jëlee si waxu abu ayub al ansari mu ne kaana rajulu fi ahdi rasul sallam yudaxi bi shaat anhu an wa an ahli beytihi nee mu ngi nettali yonent sallam ne jamono yonent sallam nit ki daan tabaski xar ngir moom ak njabootam gi yëpp kon lay war ak ne dalay wan ne tabaski dafa war alxuraan moo ko yaxal ak sunna sallam kon ñu si fadluha maanaam euh, ses avantages wala le but loolu yëpp euh, ngëneel yi yi nga xam dafa am ci tabaski ndax koo gis muy liggéey mbir sonn sa loolu am na lu nekk si gannaaw coono ba ndegam nit mooy sonnal nit séentu si moom dara kooku it fa seen kaa defal dara yooyu te dara jooju daf koy yàlla koy dogal mu am ko kon yàlla mii yàlla mii la sifeere tabaski muy sunna su war ngir wane euh, signe de reconnaissance signe d' encouragement signe de félicitation boo xam ni ab yonentam jaar na si Ibrahim ak faas yi mu jaar yëpp jafe-jafe yëpp ba yàlla tagg ko si alxuraan nekk xool Ibrahima nga xam ne mat def mat a kóllëre kon dama ne tabaski daf mat a bàyyi mat na bàyyi xel buñ ko minimiser buñ ko sufantel nañ ko fonk nañu fonk tabaski ndax wasi ta faas bu jaar yépp dafa fonk faas Ibrahima jaar yépp dafa fonk kon moom mi war a tabaski war na képp koy jullit nga fonk tabaski nee na ngéneel yi nag nee yonent bi sallam ne na maa amila ibnu adam yowma nahri amalan ahabu ila allah min iraqati dammi wa innaha la taati yowma alqiyama bi quruniha wa adlaafiha wa ashcaariha wa in damma la yaqaa min allahi aza wajal bi makan qabla an yaqaa ala ardi fa tiibu biha nafsa sadaqa rasulullah mbokk yi tabaski ngoogu de nana li nga xam ni lu ñu mën a constaté la lu ñu mën a seet ne sunna bu war la moom tabaski te lu ngëneel yu rëy moo ci ne woo ko yonent bi bii nana nit nit jëful jëf ci boo xam ni ca bés ba bésu loj ba bésu rendi ba nit jëfal jëf joo xam ni dana bëgg loo yàlla dana kontaan loo yàlla lu raw tuur deret min iraqati dam mbokk yi ah tabaski de nit defal lu bés si tabaski luy bëgg luy bëggal yàlla luy kontaan yàlla luy yàlla tax mu félicité la bëgg si yow lu raw tuur deret amut xool mbokk yi koor ni mu réyee julli ni mu rëyee alxuraan ni mu rëyee doxam mbokk ni mu rëyee fexe ñaan ñu jubóon ko fexe ni mu rëyee dimbali nit ba mu lekk mbaa naan mbaa mu solu ni mu rëyee fexe ba nit ki génne si ay torof torof ni mu rëy yooyu yëpp ni ñu rëyee yàlla ba fi yëpp na bésib tey bii tabaski ba si tabaski ba kenn defal lu lu ma bëggal lu ëpp tur dara ah moo tax mu ne maa amila nu adam yowma nahri amalan ahabu ila min iraqati dem doomu aadama jëful sa bésu tabaski ba luy kontaan loo yàlla luy bégg loo yàlla lu ëpp tuur deret macha allah mbokk yi kon mbokk yi lii dafa jaar nag bon tabaski lu ñu war a waajal la lu ñu war a fonk la naam ko amul nag amoo waaye danga ko fonk te jëm si gar sa sa sa bakken bi am ko ndax kat ki tax tabaski am fi mu jaar yëpp yaakaar ne nit du fa jaar dina si si dund si dama xelaat kon yonent bi wax na loolu mu ne wa innaha la taati yawmal qiyaama tabaski bi nga xam nag moom nga moom nga rendi ne bu yawmal qiyaamee dara dara daraam du kawar geeg weyeeg derbeeg yàpp weeg lépp dara du manqué léppay ñëw te xam ngeen ne fu ñuy posé ay poids lu yokk poids danga nga koy bëgg de fu ñuy poser pois foo xam ne lu diis moo fay jaar ku la yokk ku la yokkal ba mu diis ah am na solo te nag bu leen bu leen xam xar mi diisaay ba de mën naa tuuti lool diis lool nag ndax yi àll yéen a jë ak amin nga ak nokk na nga ko amee mën nga am nag am xar mu rëy lool woyof lool ndax amin nga ak nang ko amee kon nañu tàmm nañu tànn tabaski nañu xelaat tabaski xool xar mi la nga koy jënde mu lew yow mi jaayit bul furóot yow mi jënd it na jënd ga lew na xaalis ba lew bu tromperie am de ndax lu rëy la lu day ni weccee nit nit ki ñu fas yéene woon a rendi yàlla ci yërmandeem ak njàngale mu rëy wane ab yonentam weccee nit ki muy xar yow mi koy wuti la ngay wuti na lew wuti na lew waaye yow mi jaay it bul wurut bul nax soo bëggee barkeel ci li ngay jaay moo tax ñu ne nit deful ci bésu tabaski bi loo xam ni dana bégg loo yàlla lu ëpp tuur deret te yow man xiyaam xar mi léppay ñëw dara manqué te it intention bi nga koy defe yërmande yàlla ak bëgg-bëggam ci nun ne na bi nga tegee paake bi ci putu xar mi laata dara di di tuuru yàlla nangu na la sa si tabaski bu yàgg mu ne bon na ngeen rafetal tabaski nangeen taaral tabaski na ngeen na ngeen xemam tabaski kon na ngeen teel ba kenn yi baaxal ba kenn yi rafetal ba kenn yi defar intention yi kon kiy tabaski na fexe ba détaché son naam ci lépp loo xam ni ay tolof-tolof la xel meeg xol beeg yéen yëpp na yéwén euh, ba tey na nañu tabaski sunnatu abikum ibrahim ne na ala seen doxalinu ba ibrahim sunnatu abikum ibrahim macha allah sunnatu abiyikum ibrahim répété leen mbokk mi tabaski at udhiya sunnatu abiyikum ibrahim bu ne sunnatu abina ibrahim wala sunnatu abiyikum ibrahim sunnay sunu baay ibrahim wala sunnay seen baay ibrahim maa ngi ci biir ñu wax ni maa lana minha waa lu réy lu baaxe nii lu fonkoon nii lu bëggoon nii lii taaru àdduna taar boo xam ni fii ba am nay tukki at mu jot mu feeñ at mu jot nit di ko célébrer lu nu si am wala kay jëf lu mu si am mu ne bi kulli shahaadatin xasana euh, mbokk yi bi kulli saara xasana ah li mbokk li mu ne bi kulli shahaadatin xasana bépp kawar ak xar mi fukki yiw wala xasana xasana boo xam ne moo day si borom bi mbokk li jar naa wuti jar naa toppatoo jar naa pexe toppatoo si lu lew ba am am tabaski ndax bi kulli shaadatin xasana bépp kawar kawar bu ne bind la ko tuyaaba xaalu fa suuf dar bi nag wala kawar gi xaal bi kulli shaara min suuf xasana hadis bi Ibnu Maaja moo ko nettali ak Tirmisi kon ndeke jar naa toppatoo mbokk yi jar naa toppatoo mbokk yi bu kenn naa amul rek boo jéemee rek te am une bonne intention fas yéene jaamu yàlla yàlla mën na ko yombal ndax Ibrahima fi mu jaar ba yàlla di di ko félicité di gratifié tapal ko médaille ma yow mi nga xam ni yaa ko wutu fii at mu jot muy góor di jigéen di mag di ndaw te nga mën a tabaskil waaye yow mi nga xam ni yaay jaay xar mi bàyyil xel ëllëg waaye yow mi jëndi xar mi bàyyil xel ëllëg ni nga ko jëndax leen wala wut kon lu maanaam la philosophie di sacrifice ou bien le but bu la neexee mu ne bi jëkk bi si alxikma a taqarrub ila allahi taala biha wax naag si njaal benn gi mooy Euh, jige borom bi ci wut tabaski maanaam implorer la grâce de Dieu gis nga a taqarrub ila llah sàkko jige borom bi yëg borom bi loolu bokk na ci tabaski ndax rendi waloo ngir kenn da nga rendi ngir yàlla jaamoo ko yàlla roye ko sunna maam ibrahim mi nga xam ni doomam la tëraloon ba ko rendee jaamoo ko yàlla war na mbëgtam ci yàlla ndax bëggul xolom xolu ibrahim keneen keneen ak leneen nekk fa ak yàlla ibrahim bëggul xolam keneen ak leneen tos fa ak yàlla mu rendi xaram yàlla si yërmandeem ko xamaan que ne si intention doy na remplacer xar kon ki nga xam ne mu ngi rendi bu mu ngi rendi ngir kenn ngir lenn ngir yàlla taqarrum ila allah yàlla mu koy mi is qaala subhanahu wa ndax yàlla moo ne fa salli li rabbika wanhar fa salli li rabbika wanhar eh, ren jullil te rendi ngir sa kon booy julli bul julli ngir kenn bul julli ngir lenn na nga ngir yàlla mi la sant fa salli rabbika sooy lojit mbaa ngay rendit rendil ngir yàlla jaamu ko yàlla bon attaqaru ilallah rendi bi danga ko def ngir jige borom subhanahu wa taala ca wax ja nga xam ni mooy gën a féddali wax ji mu ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil laa sharika lahu yow ca suratu anam ci aaya 163 de 563 euh, na waxal yow ne sama julli gii inna salaati ñu ne ah wa nusuki ak rendi gii sama jàmm yàlla gii ñu na ah wa mahyaaya ak sama dund gi yëpp wa mamaati ak sama dee yëpp lillahi rabbil alamin yàlla moo ko yàlla moo ko moo sama dund gi ak lépp lu ma siy def sama dee gi ak lépp lu ma ew ak rend bi ak sama jullit yëpp yàlla moo ko moom yàlla ak séddi kenn moomu ko du mbindeef nag mbindeef lu mu am am daraja taxul ñuy julli mbindeef lu mu am am daraja taxul ñuy julli yàlla moo tax ñu julli kon inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin laa sharika lahu kon fii nusuk mooy rendi jaamu yàlla taqarrub ilallah ngir jege kon bu njëkk yi mooy attaqarrub ilallah attaqarrub ilallah mbokk yi baamtu leen attaqarrubu mooy premier avantage ñaareel bi ihyaau sunnati imaamin muwahidin ibrahim al bi mooy dundal sunnas njiitu yàlla ibrahim lami dëjee kon mooy deuxième point ihyaau sunnati imamin wahidin ibrahim alxalil alayhi salaam dekkil wala dundal wifi wifiye la sunna de imam ibrahim l'ami de Dieu macha allah kon kooku mooy ñaareel bi taxawaay ci ci xikma bi moo tax waladuhu ismail fadaahu bi kabshin fa dabahu badalan anhu ibrahim bi nga xamee ne yóbbu na doom ismail e bëgg ka rendi ngir jàmm ak borom bi bëgg effacé bëgg cofeelu nit gu nekk ci néegu yàlla war ko dindi waxee la wax Ibrahima bëggul boole kenn wala boole lenn ak yàlla ci xolam yàlla xamal ko na ko Ibrahima doy na doy na sa pas-pas mat na sëkk sa sa mat na sëkk sa intention mat na sëkk mu ne wa fadaynaahu bi dabhin azim nu nu remplacer ko jote ko ci mag xar mu am solo kooku wan ñaareel bi moo di dundal sunna si nafa sallam ñetteel bi a taw siatu al iyal yama it maanaam ñetteel bi mooy yaatal njaboot gi ba si it manam féexal leen mais nag na nekk lu lew na nekk lu dagaan na lekk lu baax ataw siatu alal iyal yowmal iid yaatal njaboot gi bésu nos bi bu la neexee bésu feet bi bu la neexee bésu iid bi bu la neexee bésu mbégte bi bu la neexee mu ne waa ishaatu rahmati bayna al fuqaraai wal masakin ak it yaatal yërmande diggante ñi seen loxo al fuqara wal masakin dëkk bésu la boo xam ne bi dañu bëgg ku yaatal yërmande diggante fuqara yi ak masakin ñi seen loxo jot seen gannaaw ñooñu ñëpp ñuy ku nekk gis sa bopp lu ñu dama see gis sa bopp kon tabaski bi war na ku ne nit ku ne ci jullit yi rawatina même l' de de de de ñu gis seen bopp ne bésib tey bii yërmande kese la ak mbégte kon kër yi ak région yi ak quartier yi ku ne war nga ci yëg ba ci néeg yi ku ne yëg ci mbégte na bi ki àlla mbégteem Ibrahima moo xam ni moom la ñu partagé moom mi nga xam ni bëggoon borom bi tax na fu mu jaar yëpp il a été éprouvé de neuf yëpp mu mu réussir ba si gën a métti mooy am sa doom mësul mësuloo am doom am doom ñu rendi ko nga accepté ba borom bi di ko gratifié dama ne mbokk yi tabaski jaar naa préparé incha allah kon ku am si yaatal sa njaboot ñu bëgg ca lekk baag. naan mbaag julli ji gaag solo gaag ndéwén bu keroog yal yàlla jàppandi lu poche yi jàppandi lu wér jàppandi lu julli gi jàppandi lépp ba ku nekk gis sa bopp ci fet bi rawatina yar yërmande fees del moo tax ishaatu rahmati bil fuqara ñi amul yëg na ñoom bésu tey bii c'est jour particulier ñeenteel bi shukrullahi taala ala ma saxal min ba mbexel al ak it ñeenteel bi moo di reconnaissance vis-à-vis d'Allah maanaam yëg-yëg sant yàlla ci ni nga xam ne moom tàkkatalal eh, li ñuy jëfandikoo ngir nu war see lekk war see naaw si def yëpp yëpp gis gis sa bopp kon yàlla ne loolu yëpp nag eh, lu am solo la waaye nag ngir am man yàlla la lay poussé ba nga def ka mooy fooba tollu wala man fan laa la toll foo ma toll ak ma la yor fan laa la toll li taa ngay di xar mi foofa tollu si man mooy yàlla ne di wax ak yu dal na la lan yanaala allaha luhumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum xar mi li muy rëy yëpp baax na de xar mu weex meeg mu ñuul meeg tupp tupp yeeg mu xonq meeg yëpp yëpp baax na bu boo ko jëndee njëg gu jar njëg goo xam ne labaj amu ca te xar ba it amul pat laagoo laag ba fe yëpp daal mu xar mu indem te ba nga koy jënd réer bi taxul mais man maa tax ragal yëg goo ma yëg faale ak ni nga am reconnaissance si man loolu mooy li nga xam mooy tànk am am am am am tabaski waaye xar mu réer ragal yàlla lalu ko xar mu réer te ay moo ko lal déedéet yàlla ne lay tax nga am yàlla. du yàpp wu rëy yàpp duuf ak lépp lay tàngam yàlla moo di la piété kon mbokk yi yàlla na yàlla fees ci xol yi jamono bi dem di jëndi xar waxaale ba ak yëpp yàlla fees ci xol yi nanu am taqwa yàlla ne lan yanaala llaaha luhumuha wala dimaauha walakin yanaalahu taqwa minkum piété bi jóge si noonu la piété yëg yàlla faale yàlla yëg yàlla loolu mooy li nga xam ni mooy bitu wala philosophie bi nga xam ni moom lañ mën a jàng ci tabaski lu mu gàtt-gàtt mbokk yi nu ñëw si beneen phase mooy afdaluha la meilleure offrande maanaam li li gën ci tabaski li gën ci tabaski ndax jaamu yàlla dangay ngay nekk am ñi am position première catégorie xam ni leen booy julli li gën mooy nga taxaw bu la dara jotul nga taxaw bu baax taxaw bu rafet bu fekkee loo taxaw nag ñu ne nga taxaw wéeru muy deuxième catégorie mun la taxaw wéeru mun la nga toog mun loo toog mun la nga toog wéeru kon gis nga par catégorie kon yow tabaski la première catégorie la meilleure di sacrifice ne na afdal adxiyati maa kaanat kabshan aqram faxlan abyad yuxaalituhu sawaat xawla aynayhi wa fi xawaimihi bokk yi ni mu am solo mu ne afdaluha la meilleure offrande bu la meilleur sacrifice mu ne afdal udxiya ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه li gën ci tabaski mooy bi nga xam ne mu nekk am kooy kooy am kooy mbokk yi bu doon nag ñu ne am yëkk wala fas naaru góor yu ne am na appellation comme ni na waxambaane waxambaane bu doon nit waxambaane kon li gën ci tabaski te kuy liggéey nag da ngay seet li kuy lekk da set la gën boo amul nag doo seet la si topp waaye li gën am taxul tarawul yeneen baax nañu waaye da nga am li gën bi te yal na yàlla yombal nu ko te barkeel ko mu ne am kooy mu am ay béjjén waaw moo xam ne weex na am ay ñuul yu ko rax ci bët yi ak ci tànk yi maanaam tànk yi ak bët yi walla bokk mu am ay ñuul yu rax dënd yi yëpp waaye daal fexe daal ba lu ñuul rax ko bleu blanc ndeke bon télé dafa sàcc dafa sàcc ci l'islam noir noir blanc parce que moom nekkee l'islam lépp mu leçon la l'islam lépp mu leçon la ndax ñu ngi melal tabaskim sayidina muhammad salaa sallam ndax id hada huwa alwasf alladi istahabahu rasul salaa sallam wa daxa bihi an aïchata ñu ngi nettali ci wax sayidina aïcha yàlla gërëm mu ne inna nabiya salaa sallam daxa bi kabsin aqrana yatau fi sawaadi wa yamshi fi sawaadi wa yanzuru fi sawaadi sadaqa rasulullah boo ko xadis bu neex bi ni mu neex tëggin gi dafa tëggin gi dafa neex dëgg nag mu ne inna nabiya salaa sallam daxa bi kabshin aqrana yatau fi sawaadi wa yamshi fi sawaadi wa yanzuru fi sawaadi sadaqa rasulullah moo tax ku la gën a mokkal ay hadis gën la dégg alxuraan de kii da ngay dal da ngay dal lépp arab la teggin gi dafa neex ba na am am souplesse encore clarté ba pare riime mu ne inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam daxa bi kabshin aqrana yata'u fi sawaadi wa yamshi fi sawaadi wa yanzur fi sawaadi sadaqa rasulullah xadis bi Tirmisi moo ko nettali mu ne ñu ngi ay sama ngi nettali yàlla gërëm ko mu ne yonent bi am kooy mu am ay béjjin moo xam ni dafa ànd ak lu ñuul tànk am lu ñuul bët am lu ñuul gémmiñ gi am lu ñuul kan lay xamal rek tabaski bi soo mënee am noir blanc c'est meilleur am koy noir blanc am bay jën te dara jotu ko soo xul patul tëxul làggawul yooyul indam na kooku mooy li gën ci tabaski yal yàlla jàppandil ko mbokk yi ñi nga xam ne wuti ay xar ak ñu ñu ani xar yal nañu ko bari lool te prix te bi nag yomb ndax bu nekkee prix ngéyeen yi ak ngeween yi day lamb rek de waaye bu nekkee prix sekkee nag day du lamb te day barkeel kon mbokk yi loolu ci njaal benn ki mooy afdalu la meilleure offrande li gën ci tabaski afdalu ut afdalu léegi nag am nga tabaski kañ lañ koy rendi ndax da nga koy rendi balaa suba am da nga koy rendi bala ngay dem am da nga koy rendi bon jullee ba noppi am da nga koy rendi avant avant avant avant euh, le jour de la tabaski ñu déglu mu ne. وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة أي صلاة العيد فلا تجزئ قبله أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين صدق رسول الله waxtu wi nga xam ni si la ñu war a rendee moo di suba iit gi gannaaw bi nga julee ba noppi après avoir effectué la prière après l'office si ngay rendee xar mi kenn du rendi xar mi te jullee guñu xanaa sunu mbokk yi jawee ñi rek ndax yàkkamti kon kenn du rendi xar mi te jullee guñu ndax it sax moo ne képp koom da nga rendi lu jiitu julli gi naka wóor ne am na yàpp de ngir boppam waaye ku ren di julli matal nga sa tabaski te def nga sunnas jullit yi amma baadul iid fa innu yajuuz taaxiruha lil yowmi athani kantaan bésu itam ba tey man nga yéexal man nga yéex a ren di bésu ñaareel ba kon mbokk yi lépp avantage la boo xam ne yàlla koy jégle julli ndax man nga bañ a am si bés bi ah deuxième suñu nga am wala nga bis si am am ngant dab ngant dab lu yëpp dafay dafay dab kon moo tax ñu mën ren di deuxième jour bi dagaan na nee na ñetteel bi ñetti man nga troisième jour bi si ndax dañ kullu ayaami tashriq zabxun loolu soo demee ci Ahmad ak seen dem yëpp nee na deuxième jour troisième jour yëpp des na si des na kon un deux trois yëpp daga na ko si ko si rendi ba tey mbokk yi ñu dem si teggi teggi rendi bi mu ne li nga xam ni dañu ko conseiller pour def ko booy rendi ce ki est conseillé de faire fort du sacrifice ne na maa yustahabu inda zabiha mu ne yustahabu an yuwajjaha ila qiblati wa yaqul inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal ard xanifan musliman wa ma ana min mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin laa sharika lahu wa bi dalika umirtu wa ana awul muslimin booy rendi wax nañu ne na nga ko jublal xibla maanaam fa kaaba ga xam nga penku ak xibla du benn waaye nag xibla bi dafa nekk penku bi na nga na nga dàkk kaaba ga teyit nga wax ne inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama lépp jox naa ki nga xam ne moo bind asamaan asamaan ak suuf ci waxin sama lépp sans fay may ku may julli nag may ku omatu bokk ma mukk ñi nga xam dañuy wutal yàlla ndende sama sama julli gii sama rendi gii sama dund gii sama dee gii yàlla ak moom duma ko booleeg kenn du ma la ko booleeg lenn ndax loolu yi ma digal ma nekk premier musulman mbokk mbokk nit kii engagement la c'est un engagement da ngay seet les partis politiques ku nekk am na looy wax looy wane yow tu es un tu es un euh, vrai combattant ama euh, euh, nu sax militant di parti dafa lay jël lu ne sa lépp sa temps sa kër sa xam-xam sa lépp da nga koy joxe si partie bi tey parti bi nga koy joxe bindu la yoru sa wërsëg da nga ko fa yëngatu rek te day dafay jóge ndegam yàlla la may ba nga mën a créer parti def si lépp nag waaye parti bi yàlla nag lu ma la jaral bu la jaralee nga jaay sa kër ngir parti bi dund jaral si lépp sa temps bi yëpp waaw parti yàlla bi nag lu ma la jaral parti bi nga xam ne mooy c'est le parti victorieux mooy bi gagné ndax si ñëpp si moom lay mujje lépp si moom lay mujje moom parti kon inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa maati lillaahil aalamiin sama julli gii sama rendi gii sama dund gii sama dee gi yàlla ak moom moom moom lépp duma ma ko booleeg kenn du ma ko booleeg lenn un engagement cent pour cent kon mbokk yi nu xool gannaaw yooyu ndax dagan na ki nga xamee ni mënta rendi wala am na ngànt mu dama def procuration maanaam wutal keneen mu rendil ko muy sixatul wakala fiiha maanaam procuration koo xam ni kii dafay wutu ci rendi gi wér na mu ne yustahabu an yubaashira al muslimu udxiyatahu bi nafsi wa in wa in anaaba gayrahu fi zabihiha jaaza zalika bila xaraj wala xilaaf bayn al ilmi fi hada dagan na li gën nag mooy borom tabaski bi rendi li boppam bu fekkee nag am na ngàntu gi rendi ndax am ñoo xam ne mën ñu mën nañu rendi mee seen xel dalul dalul daal ñu jël nag ku leen remplacer na ñu remplacer ko ñu def procuration mu rendi borom xam-xam yëpp dañu bokk d'accord kon mbokk tabaski euh, lu am salaam googu moo tax ñu ñu war a xam tabaski yonent bi saa sallam tadxiyatu rasul saa sallam an yéen al ummati yonent saa sallam euh, rendi na ñaari xar mu ba mu nepp mu ne allahuma hada anni wa amman lam yasax lam yu dax min ummati bii day sama xar la waaye bii it képp ko xam sama taba sama sama sama sama sama sama njaboot koo xam ne loo xam lu gën a ni tey ak fu mën a ne tabaskin laa ko mbokk yi kii mooy mooy mooy yonent yërmande depuis septième siècle mu tëbaskil koo xam ne ki mu nekk l'an deux mille dix huit kii mooy mooy yonent yërmande rahmatan lil alamin kafatan lin naasi bashiran wa nasiran septième siècle la tëbaskil ji nga xamee ni l'an deux mille dix huit am lu ñu jëndam xar mbokk ndax am na yonent bu ëpp yërmande kii bu fa bu fàggu ne bu yàlla talal ne kii bëgg xeetam ni kii sallallahu la wa sallam kon yal na yàlla fayal ko kon mbokk yi nu ak si cappaandaw gi te ngeen di baaraam bi incha dañ fi ñëwaat gën leeral prix baag nu muy nangam nangam yeeg yëpp ak bés sa taaru yëpp euh, lu si sant yëpp ñu gën si gën ko leeral tey moom ñëw nañu si wax wax ak yéen rek définition tabaski ngëneel bi. Euh, acte bi avantage bi la sañ si mën jële ak yonent bi salaam euh, mu tabaski woon ak it procuration bi nga xam ne am na ci tabaski kon mbokk yi nu ngi siyaar ñëpp di ñaan yàlla subhaana taala mu dolli jàmm dolli xiwal waaye nag di teerale di siyaar bu baax a baax groupe góoru soppay nabi yëpp ci Sénégal ak fu nit mën a ne seen groupe tudd soppay nabi imaam war sax mu leen di nuyu di sargal te yéen tamit ne ku bëgg ko ko bëgg-bëgg na la yéen yàlla doon moo xam bëgg nañu bëgg di siyaar nag bu baax mbooleem ay ma yëpp di leen ñaanal jàmm ak tawfi ak yàgg man yàgg jiite yàgg talt yàlla gërëm mbooleem koo xam ne ki fa ngay yëngatu muy bitig muy marché muy géej muy liggéey muy usine muy fépp yàlla na yàlla nangul la fa dafa la fa barke tawfi ta dafa la kaarange yàlla yàpp jàppandi tabaski yëmba tabaski te lépp jàppandil xar yeeg wér man ngaak am nga ak yëpp yàlla jàppandi ko te nangu nit su tabaski seen mbokk Omar Seck mu ñëwoon tiit waxtaan yéen ci ci lislaam asalaamaaleykum wa rahmatulah